toll nañ fukk juróom-ñaar des yoo xam ni daal dinañ tukkee ca école nationale d' administration bu Sénégal daal di amal visite foofee ca port autonome bu Ndakaaru ak commandant bu port élèves yi la daal ci plan d'eau bu domaine maritime bi les besoins lépp luy dund lépp luy jumtukaay bu war a dem ci réew mi rek fii lay jaar ci poor bi. qui ñii nar a nekk ay hauts fonctionnaires bu état directeur général bu port autonome bu ndakaaru daal dinañ recevoir moom Mountaga Sy daal di tontu ci seen i laaj yu fasantikoo maa ngi ciy kontaan bu baax a baax parce que suñu partenaire yu gën a am solo euh, ci wàllu euh, support di ñu jàppale ci li ñuy doxal guddi ak bëccëg ñii ñëw fii tey ku nekk si ñoom war na mën a nekk responsable ci institution yi may wax nii moo tax am ñu mel nii ci bi ñuy jàng ñu ñëw xam li ñu fi def bu ñu xasee ba am seen i lijaasa war a mën a liggéey lu baax la ko ñu. mu di loo xam ni daal na leen may ñu xam bu baax dayoo gi nga xam ni port autonome bu ndakaaru am na ko ci koom-koomu réew mi waaye tam natt doxalin bu ñu war a am ëllëg. poor vraiment am na dayoo bu am solo donc ñu jàng ci lu bëri euh, ci gàttal ñu mën cee tënk daal ne port vraiment euh, institution bu am solo la. ci dëkk bi ak surtout ci koomu dëkk bi. élèves yu école nationale d'administration yi de daal nañ ñibbi seeni kër. akub expérience bu yeesa boo xam ni dana leen jariñ ci seenum njàng naka noonu bu ñu noppee ba war a liggéey